te surtout li ma fi tax a ñëw tey rek vraiment c'est pour euh, apporter ma solidarité. Euh, ak euh, a Ndour. Mhm. ma wax dara tuuti si Maïmouna a rek Maïmouna Ndour a est égale à a même mhm. elle a toujours été comme ça. Mhm. man bi ma koy xam bi may jëkk a xam ne kii mooy Maïmouna Ndour Faye. c'était à Canal Info. te Canal Info képp ku fa jaar. li ngay jëkk a wax moom mooy je vais mais je risque retrouver devant une pestiférée c'est-à-dire koo xam ne du la may foo nokkee. Maïmouna Ndour était comme ça cest a dire que elle avait euh, euh de mettre les gens devant leurs responsabilités moo taxoon même au niveau de Canal Info tu vois peut-être c'était une petite chaîne mais euh, dafa dem ba ràññee boppam foofu ba nga xam ni tout le monde la reconnaissait c'est-à-dire que képp ku mu foofu rek booy dem foofu rek di nga xam looy wax. un jour histoire une petite boutade rek parce que yow ci biir yow ci biir sport bi nga bokk. parce que dégg naa dafa yor plateau ñu doon wax ne que may mun a bëgg na la invité pour parler de ça mais malheureusement xamul dara si basket ma ne ndokk parce que bu doon xamoon ne dara si basket bu ma fa jëyee fii et là ma dans du difficulté monstre parce que dalay dalay poser ay question ba taf la ci mi nga mais mu dee comme ça donc elle amul entre opposition ak euh, ak pouvoir et c'est elle est elle est professionnelle jusqu'au bout des ongles donc moi en tant que patron de presse dama koy rafetlu parce que nous on a toujours été comme ça te ñëpp ñi nga xamee ne on travaille chez muy jël ko Mame Less Kabara ba Alioune Fall ba euh, euh, Yoro Dia ba Alioune Fall ak ak ñoom Yakhya Mbaye ñoom ñëpp ñoom ñëpp suma jaar mais c'est des gens nga xam ne dañoo amoon vertu un peu sur le plan communication donc moi je pense que quelque part di gën a sonal communication bi tey xëy na peut-être que duñ ko wax mais c'est surtout euh, la floraison un peu de de de l'internet c'est ça qui a créé tout ce tout ce